boo ñaa billaay yaa ngi ñuy fët bu ree nag mais dëgg laa a de suñu baxu bakkan ni nga toog man damaa teg ci nu fonde bu tàng jër di jox ku kaasam Albourakh Production présente le combat de l'été. Attention, Boy Niang 2, Lac de Guerre 2, le 13 juillet, Arène nationale de Dakar, drapeau Aliou Sall, maire de Guédiawaye. Le combat sera diffusé en mode pay-per-view. Maanaam nay leer, amul toog sa kër jàpp télé de déedéet. Restez connectés sur seneaffiche.com. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net open press baa ngi xale yaa ngi dugg si Babacar. waaw loolu am na pël bu rafet. géejewaay daal la ngi nii. géejewaay de dina yëngu. ah yëngu da lay nuróol. loolu daal lay daa mel ni moom la ñu bëgg a lan moo war a téye bi ci porte bi tamit. waaw xoolal pël dañ laa bëgg a xorom ba da nga xorom. gars yi dañ laa bëgg a xeram ma eh. dañ laa bëgg a xorom pël. pël ah lu tax nga koy bañ xorom si. tamit dañoo bëgg a xorom pët gaay ko sotti xorom ma ne ko dañ xorom nga xorom ëpp na ah, lu ëpp ëpp na de ëpp na de daa sànni xorom xëy na dañoo bëgg nga gën a saf xorom rek nga saf nga xorom nga gën a saf en war nañu organiser waat open press waaw loo ci mën a dégg tey micro bu jaasi kaw dootu ko wax tey ñun ñëpp bàyyi seen yitte yi ñëpp si laaj kon dañuy sant waa Guédiawaye baax a baax sant képp koo xamante ne a nga biir Guédiawaye jóge fu mu mënti doon ah ñu ngi lay sant di la gërëm. incha allah la ñu ñëw fekk la fii fekk fi doomu Guédiawaye yëpp tey mbëru Guédiawaye yëpp gën def mobilisation bu mag di wane ni mbooloo mooy doole ngir combat capital bi nga am sa diggante koy ñaate. mais nii la dañ ne mbooloo moom mooy doole. tey bu ñu amee combat bu leer kon donc waa Guédiawaye tamit ci sant yàlla bu baax a baax ñu ngi koy waaj nag bu baax a baax daal. waaw. nga ne tey lay. tey lay mujjee tàqalaate. ndax combat bi dina gaaw wala dina yéex. waaye waaye la dëgër tey géej waaye dañ laa sas. Balla Gaye numéro 2 ñëpp a génn Sa Thiès Boy Niang 2 Lirou Diane Alioune Seye numéro 2 mbaru géej waay yëpp Elton Guy gi. dañ la sas waaw bés bi seen bés la ñoom tamit. kon ñoom ñëpp bu ñu xamee seen xarit seen doomu ndey am na combat ñoom ñëpp dañ ci ñëw taxaw bu baax a baax. démb nit démb nit ko laajee woon Boy Niang ko laaj ndax combat bi kan mooy dirigé. waaw ndax bëri la bëri xale la ak mag combat bi faaw mu am ku dirigé Boy ndax ñu am la dirigé ba dañuy xam ku dirigé ci kàttan yàlla. Lac de Guiers Boy Niang nee maam moom dañ ko laaj ndax am na looy moytu ci Lac de Guiers. mu ne moom amul lenn muy moytu ci yow maanaam combat bi moom arbitre soufflé na bor bi soufflé rek mooy taw na sa kaw jël ndax combat bi day gaaw waaw da fexe ba lu mu wax na ko dëggal rek uh-huh. dinañ xam bés ba ku muy moytu uh-huh. combat bi dina am xeex ku ci mën rab dinañ ko def waaw xamante ne moom mooy Boy Niang ah, yow xeex bi lañ la jox favori loolu lan nga siy tontu. kan lañ jox favori. dañoo jox favori ci xeex bi. yow lañ jox favori mais dañoo gis ci cadre bëre bi. ko ma jox favori. mais ci cadre bëre bi. waaw dañoo wax ne yow sa bëre wane woo ñoragul quoi par rapport ak Boy Niang dafa wane bëre. daal yëkkati ñu ne dégguma. ci cadre bëre. waaw rek nag Boy Niang. mais daa am ñu jàpp ne Boy Niang daf la maanaam. mënu bëre bàyyi leen ñu ne Boy Niang mënu bëre bàyyi leen yooyu. daal yëkkati mënu bëre mais eh, Lac de Guiers dernier mot dernier mot. waaw dernier mot waaye. dernier mot waaye. Ah. man aw ma dugg géej waaye ah. maa ngi wax Aziz Ndiaye moom moo ne Guédiawaye moom moo ko ñor kon bés baa ngi nii bésam la di woo sama papa eh, Baye Ala Ndiaye masa tot sama mag sama lépp ñu woo ñu sàll la woote kay monsieur le maire Aliou Sall ñu ngi koy woo ci bés bi ñu ko bés bésam la ñu ngi woo autorité yëpp nekk Guédiawaye la Diop Mame Boy Mame Boy Diao Diawara Mame Boy Diao Mame Boy Diao sama xarit sama ndigaay sama lépp Mame Boy Diao Mika Ba. waaw Zali. Mika ngi woo ñëpp daal bàyyiwuñu kenn ci bés bi ñu teew ci. xam nga la xam naa li Gakou. suñu nijaay. xam ci combat bi. di woo waa Fouta surtout waa Fouta. waa Fouta waa koo xamante ne yaa ngi Fouta. yaa ngi dégg. maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ma xam nga la di woo ci nga xamante ne moom mooy kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. kilifa diine yëpp. ñëpp maa ngi leen sant leen gërëm lu mu wax la ci combat bi tamit waa Tiwaawoon waa Tiwaawoon xalifa bi ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn shérif yi nag maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn shérif yëpp maa ngi leen di sant ñaan ci bés bi am na ñu woo ñi nga xamante ne tey moom micro yi micro yi lan lan seen pass boo ñaa billaay yaa ngi ñuy fot bu ree nag mais dëgg la wax de suñu baxu bakkan ni nga toog man damaa teg ci nu fonde bu tàng jër di jox ku ne kaasam Albourakh Production présente le combat de l'été attention Boy Niang Lac de Guerre 2 le 13 juillet arène nationale de Dakar drapeau Aliou Sall maire de Guédiawaye le combat sera diffusé en mode pay-per-view maanaam nay leer amul toog sa kër jàpp télé di seetaan de sur senaffiche.com Sunugal 24